man la Mouhamed Ali Ndiaye eh, doomu sénégalais nekk ca Italie maa ngi sant yàlla di sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm sëñ a Xadimal Musa mu rasul di sant sëñ Abibullahi Mbacké Falilou la jëwriñ de Touba ca kanam di sant sëñ Abdou Fatah Gueye le président mu nuyu ñëpp eh, di sant sapeur pompier yi teew fi suma collègue yi eh, le colonel di sant tamit les représentants du maire yi de de euh, di wax ni jëf ji tey dañ fi teew indi ñetti sapeur euh, auto sapeur pompier yoo xamante nii euh, commandant le général des sapeurs pompiers d'Italie moom moo ko joxe ingénieur Fabio Dadilo ñu jël lépp teg ko ci loxo euh, Touba ca kanam ba mu jaaree ci commune bi ñëw ci loxo Touba ca kanam Touba ca kanam nag damaa bëggoon leeral ni Touba ca kanam moom moo fay lépp ba mu jugee ca pooru Livorno ba ba egsi ci pooru Dakar ba ci génn bi ba indi ko ci Touba pour jébbal ko sapeur pompier Touba bi Touba ca kanam moo fay lépp Touba ca kanam moo fay tam sama billet pour ma ñëw seede jëf ji donc ñu ngi sant di ñaan sëñ Abibullahi Mbacke Fallou lu yàgg fi te wér Touba ca kanam gën a jëm ca kanam damay wax samay kàddu sax wax naa ko sama baay Moussa ma ne ko Touba warta dem ca kanam suñu jëm yi ñoo war a dem ca kanam parce que lu nekk ajana ma nga ci ajana ñun ñoo ko war a fekk ñun ñoo war a jaayante jëm ca kanam muy convention boo xam ne nii entre euh, Italie muy euh, sapeur pompier mi ko mën a wax yi nekk Italie ak yi nekk euh, mairie Touba ñu amoon benn convention boo xam ne dañu ko jaare ci Touba ci kanam boo ko àndandoo liggéeyoon ko ngir lan bëgg ba séenee wuti loo xam ne nii njëriñul Touba lay doon njëriñul dëkk bi lay doon. Touba ci kanam ñëwoon ba invité waale maire bi boole ko ci ngir dafa am loo xam ne administration lay demee yoo xam ne mënul faaw maire di ci dàkk ngir. Euh, dëkk ak dëkk dafa am loo xam ne bu ñu koy signante ak convention lay doon muy entre ñaari maire yi loolu moo waral jël maire bi Touba dugal ko ci comme ñoo bokk liggéey bi ànd ko ak waa Touba ci kanam ngir ñu fexe ba euh, matériel bi ngeen gis tey mën a jóge Italie ñëw kon nag muy lu rafet muy liggéey boo xam ne mooy li ma leen di wax rek ne Touba ci kanam ak maire Touba ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk lépp lii rek wane waan na ko tey jii. li nga xam ne nag euh, moo fi xew tey muy ay auto sapeur pompier yoo xam ni waa Touba ca kanam. ànd euh, kook mairie bi nga xam ni mooy institution bu permettre euh, coopération bi man a am ndax bu mairie bi euh, taxawul woon xëy na dinañ am jafe-jafe ci côté boobu. kon waa mairie bi ñoo ngir nuyu monsieur le maire di ko gërëm di gërëm ñi ma àndal ñëpp di liggéey ñun sapeur pompier nag mënuñu dul remercier leen sant leen ndax lii ñu def ko gest bu noble la geste citoyen la waroon na ku nekk. mu def ko euh, ndax lii ngeen def nii defal ngeen ko seen bopp xëy na defal ngeen ko waa Touba waaye population ngeen ko defal ndax euh, oto yi population bi lay sauver kon nag mën na noo wax ni defal liggéeyal ngeen yàlla ci lii ngeen def nii euh, lii day ñëw renforcer programme bi nga xam ni moom la président de la république teg génne ñaar fukk ak juróom ci milliards pour équiper sapeur pompier mooy engins yu bees yi ngeen gis ñu ñëw te benn bu ci nekk di jar trois cent millions kon yéen dafa mel ni da ngeen a feelu président wala ngeen dugg ci biir programme am ndax li ngeen def day ñëw fekk si renforcer capacité opérationnelle bu Touba. Touba tey ku ne xam na ni dëkk buy màgg la ku ne xam na ni moyens yi ñu indi bu fekk see moyens yi nekk ci camp bi du ñu am sax fu nu gaare mbaa buñ ko amee it bu ñuy génn. génne bi dina am jafe-jafe moo tax jaadu na euh, loolu vraiment Serigne Habib yow laa koy wax euh, ñu am beneen caserne boo xam ne ni dina ma tax ñu éclater moyen yi ndax bu lakk amee ci benn gox engin bi war a jóge fii mën na yéex a àgg te bu ñu amoon beneen caserne bu kee départ kii départ rek mhm. jàpp naa ne dinañu mën a liggéey liggéey bu am solo ndax moyen yi tubaar fakal la bëri na ñett yi ngeen joxe bu fekk see ñaar yi fekk si li état def day mel ni tey ci caserne Sénégal amul caserne bu ëpp moyen caserne Touba loolu nag yéen leen koy sant di leen ko gërëm oto yi nag na seen xel dal danañ ko yor yor buñ ko war a yor danañ ko sàmm ndax xam nañ ne yoon bi ngeen jaar ba am ko yoon bu yomb fay ngeen ci seen xaalis consacré ngeen ci seen temps loolu yëpp sacrifice la boo xam ne lii rek ngeen bëggoon bu lii amee nag ñun ñi ñu ko jox jumtukaay yooyu dañ ko war a sàmm téye ko xam nuñ koy téye bu soobee yàlla danañ ci def li ci war yëpp dellu di leen sant rek di leen gërëm